ngiroo di blocage ci assemblée nationale mënuta ñàkk observateur xëy waxee ni ndax dafa jàpp ne xeetu wàññi nag xayma wi nu séddale membre yu bureau assemblée boobee moo nar a ñëw la jël mbir ya ci vox populi professeur Ibou Sané moom déséquilibre la gis jëmee ci waa yeewi wàllu ndax mu ne président assemblée bu fekkee ñoom yeewi wàllu taxawal nañ fa juróomi groupe parlementaire yi ñenn ñi ne moom la ñu fa nas dinañ ko jël otage boobee président assemblée ndax su dee président bu néewle ay ñooñ ca bureau ba naka noonu ci conférence des présidents président kan ngay doon su boobaa ndax boobu toogaay di nga ci ne à jigéen ñoom takkaat sër yi amal cong gi ci biir assemblée boobee ndax enquête nee na donte juróom-ñaar fukk ak ñetti toogu lañu fa am seeni gët fa mu tegu yépp mooy ca toogu président assemblée jigéen jël ko président réseau sigil jigéen ñi jiitu ca xeex ba ak yootu gi moom soxna Safiatou Diop ne mësuñoo ni jegee nag mbir mi di ndam li ñoom jigéen ñi seen càmmiñ président Macky Sall Direct News jàpp ne ku may faw mu taxawal moom gouvernement bu mu ubbili buntam opposition bi ndax résultat yi tukkee ci wotey député yi fi doon amal mayetu ko mu def la ko neex ci wàllu politique yéenekaay bi gis ne ne lees war a jànge tukkee ci yooyu mbañ gàcce mooy askanu bëgg gouvernement bennoo ci réew mi yëpp wala boog bu nu yaatal ca sax ñu ne bu tàllalee loxo opposition bi rawat na waa intercoalition bi bu nu ko ko lànkale it moom président du ko ca teree rafet source a xëyee la mu jàppee plan bu waa PDS ndax ci njëlbeen sax ñu ne parti démocratique sénégalais xërul woon lool ci lëngoog waa yeewi askan wi ndax Karim Wade ma ci doon naatable ginnaaw bi mu gisulee turam ci liste ci Ousmane Sonko nekkoon ca moom bëggu la beneen candidat ak présidentiel yi nu kaay bi ñëw nag ci ndiglay Karim ci waa wàllu ngir taxawaluk seen groupe parlementaire yéenekaay bi di tribune xëyee la mu tuddee fu xalem suufu homme d'affaires yenn ci Sénégal ak nguur gi ak benn pàcc suuf bu université Cheikh Anta Diop bu ñu ne dañu ko daal di jaay mooy fa fareek école supérieure économie appliquée Bougane Gueye Dany ci yéenekaay bi ne nañu taxaw nag takku saweli des ci suufas université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wàllu sawe waaye bi yoonu bakkan Malick Cissé ñu gën ko xam ci moor di borom këru soxna Doura Diallo mi faatu ci jamono ñu doon mucc ci diwaanu Kédougou ci libération mu nga ci naan kër docteur ñoo faat doom ja ba muy ñëw ñëwaale na bakkan audit di gëstoog jàngati ministère de la santé yi nu amal nag moom lam ko jàppe mooy taxañub kàcc rek ndax mu ne benn wàll kese la ñu déglu mu ne juumte am na yàq nañu àddinaam teg ciy menacé ak a ñoom wax kër docteur naan dañuy grève ñu des ak libération mi gis ne yokkute njëg yi nag yéeme na rek lu na jamono yi Sénégal boo xaajee atum 2022 ñeenti xaaju ñetti weer ci ñaareelu xaaj ba njëg yi yokku na fi téeméer yoo jël juróom-ñaari yu tegal borom kër yi sëngéem dépense yi métti lool biir yi def dara ci njaboot gi ñu naan déetawaay courant bi ñëw gën yokk njaaxle mi ndax fukk ak juróom-ñetti borom kër yéenu déglu yépp nee nañ ñoom seen ñaari dernière facture courant yi dafay yokk lool bés bi le jour moom xëyee gox yi borom barke yi ci ndakaaru fu ci mel ni point E Almadies 1 2 taar wañ leen doon xoymet ak it ñaawaay gënu fay dund jamono yeeg inondation cadre de vie bu yàqu jumtukaayu ràpp ci gàttal gox la yoo xam ne tur yu rëyee rek a fa des ndox yu bari yi nag tàngoor weeg tëri di jaww ji di changement climatique ci le soleil mel ni ku ci a posé ne jaww ji yàgg na ndax fekk kay sàkku ci partenaire Afrique yi ñu baral jéego yi ngir taxawu gi lamb ji sunu lamb xëy di defal xayma waa écurie Lansar fukk ak juróom-ñaari victoire juróom-ñeenti défaite benn sans verdict yéeni bi ne Lansar a ngay dëgër dëgërlu di def résistance Siteu ne mu nga xaar Papa Sow waaye nes fëgala super étoile ñoom ne mes ca États-Unis Tidiane Faye di Bégade Takke Abou Yassé fils de Max yéeni bi jàpp ne ñooy yi ba tey ak sunu lamb ñu jàng ca bëre incha allah. Ndayan Lagos International. NCA Assurance. TDST Touba Darou Salam Karo. Okayar ndox mi neex te sell. Gambrendi et la beauty. Malaysia Yumu. Home Choice Sénégal. ak marque bi di Total Tools. ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi.